waa xanaa woowa leen daam waa daam. maa ngi nii. daam yow looy xaar. maa nekkul ci biir jot na. parce que dama envie toog. Eh, daam. waa xaaral ma la ba fii ndogandoog ñëpp. si yow nga nga naan da ngay ber. wala nga teg ko xam li tax mu ne day ndogu ci biir. du fi amee. kon baax na tey moom heure bi dafa yéex tey da yéex ndogu maam jaara looy xaar. ah xel li mënoon. am na koo xam ne bala maa gëm bi du sàcc yi naan dana ma jaaxal parce nit ñi dañuy yenn woo yendoo woor ba ngoon jot di ndagu mu nekk ci téléphone am fay la. soo wakkee mu ak koo ne ci kër am na ndogu taaja rek mu ñëw wërëx. ndogu woo xanaa. ndogu maam Diarra. yaa dem maam Diarra pour lan maam Diarra day ndogu xanaa gisoo maam Diarra day ndogu. jot na ma heure ba nga yónni maam jaara ci mbedd mi ne heure bi papa maam bu ñu leen doon dogg lii bëgg du demal boppam déggoo li ma la wax de lii yëpp mënu leen koo jeexal papa wuyu ma war nga ku ñàkk jom nga boo soxlaa clim doo dem liggéeyi ñafe def ko sa néeg ah, waa Diagne ça va. Diagne Diagne ça va kër. ça ko café. Dame xeelu ko café. ma julli ji wallaay. papa doo ndogu. baax Ndambe. man xaaral ma dem kër wooy nga pauvre sa xarit pauvre lii. loolu sa unique. Dame ndogu leen. cat ndawul ba suur ndawul laa soos dànqee la cat kii kafe ma fàtte dox amul la tàmbal ma jaa ngi noonu cat bu foog tàmbal ma daan yaa foo dem maa ngi ci ci biir mooy nga si wax nañ toog ndam ndam la toog cat ndawul ba suur de ndawul laa ngi noonu cat cat nit du loo invité ci gërëm ba pare nga bëgg a sàcc ndogom bi cat caat. ndox demam neex na ma. waaw waaw. sama yaay la baax sama waay la. sama yaay ko defar. yow ñëw damaa xëy ba dama doon miir. looy wax nii. waaw waaw. ma xaw a miir la. oui ma. tàngal ma ñu ma si amaatam. yéen. Hmm? lii moom lañ doon caat lii sama papa ko moom lay ndogu waaw. naan na ci ndox mi boo wóoree boo ngootee da ngay naan ci ndox mi caat. Hmm, caat. Ah, cat jugal dem cat laa doon xool ndax des naa dëgg. cat. Hmm. cat jugal jugal dem. cat cat a cat kaay. jàmm ak salaam.